mën nga bañ parti au pouvoir mën nga bañ président Macky Sall yaa may dégg kenn mën na leen bañ la question n'est pas su ma déggee ñu tax naa ay pampre naa dañuy dem xama cour pénale internationale avec cet avocat c'est pas moi pédophile là de de de Branco am lu ma ko ñamal sax xam naa ci su ma jotoo ko lire pédophile voilà ah mais yow tamit kooku xanaa xam ma sax su ma déggee soo ko naan France dégage ñëw dem jëli ku mel ni ko kooku ko même pas une référence et Yérim Seck franchement je lui rends hommage j'en hmm. profite